amu ci mais su ma indee sama oto dawal ba ñëw ba war a jënd ay billets pour dugg maa ngi jàmbaar booy dañoo kës sama billet daw ma dàq leen lu toll ak mille personnes wër toj seen i mbaari di jam yenn booy di dóor ay xeer mais su ma yoroon goon mi ñëpp laa éliminé dama leen di wàcc ñoom ñëpp du ma ci jégal kenn barki alxuraan bu ma yoroon goon agresseur doo ko yërëm bu ma yoroon goon booy bi laay rey no man seen frère la au moins mbër laa am naa avenir xam nga war nañu mën a sàmm sama avenir mais xaaral ma yàq mbër yi mooy lañ toj. non oto bi jotul yàqu. dama daw topp boo ci kaw. booy yëpp topp man nag ma yaakaar ne booy dañ may soutenir ndega ñoo ànd booy dagg sama sakos dóor ay xeer di daw taxaw ñu de dañ ma doon dóor ay xeer di daw xool sama loxo gisoo mais yàlla baax na. lu mais jël la léegi. nañ benn téléphone beneen bi dañ ko damm. mais bañ ko jël. Ah. maanaam dafa gaaw xam nga nit bu fekkee dañ laa wër doon groupe. kee mën a jël loxoom dugal fële ci ginnaaw ci daw ci la wër jàmbaar daw da xam nga ñu seex booy booy dañu dóor ay xeer mais booy bi nga xam ne moom laal ci loxo jàpp naa ko yóbbul ko buum yi actuellement ak moom commissariat dina ko wax xaatu nag non dama bàyyi mu sedd xool bi ñu am defuma leen waxuma leen ñu dañ ma agressé man laa lañ laa laaxee waga bi lañ dajal barke alxuraan maa leen gën neex waga waa jàmm gën ndax ak waa tëngee parce que Mohamed waa Rio. mais kan moo la wax melul noonu Mama Lamine melul noonu ñooñu ay Baye Fall lañ yabaluñu leen yónni wuñu leen mais comme ñoom loolu ñu bëgg a dund man mais na neex. jàmm maa bay frère waa jàmm gën dañ may bëggee man waa jàmm gën dañ may bëggee ñoom Liss booy yooyu ñoom Laurent samay booy lañ comprendre nga mais booy yi nga xam ne ñooy saltal nii mbëri sax yëguñu leen lii la inditation ci làmb làmb ji jotagul yaa tey nan ngeen indee seen ci kàttanu yàlla xam naa lii moo nekkoon sarax bi rek tey Moussa Ndoye day daan jëlu bu rëy incha allah rabi mais ñu gis ni ngeen booloo tey nekk benn Thiatou Yarakh ak Weuz Diambar nekkoon ci affaire euh, euh, Moussa Ndoye ba 18 ñu gis si nekk ngeen benn soutenir ko tey ba heure bi combat bi bari coow bay guy gi moom moomay combat bi daa yóbbu fitu Moussa Ndoye lamb ji moo laaj ndax Moussa suñu grand la tey lamb ji nii bu ci wéetoon bu ci wéetoon rek mooy loolu noonu. ñun ñoo ko war a mën a soutenir quoi. Uh-huh. xam nga tey le problème mooy bu ñu ko seetaanoon bu ci amee lu ko naqari rek mën na décourager ci làmb. le fait que mbay ñun ay moromam lañu bu ñu gisee dina lu mu ragal ci grand bi te grand bi du a ñebere bi raxe rax bi la de. jàpp nga ne Moussa Ndoye ba pare. tey nee naa Moussa Ndoye ñëwoo ci làmb te da ngaa ñëw pour duma mbay guy gi ñibbi. yéen loolu am na lamb yi Sa Thiès moo gën a dis mbay guy gi te dañoo dékku làmb ji ba mu jeex ñu dem ñibbi. Uh-huh. kii du làmb. non. tey li ñuy xaar ci moom mooy li ngay xaar ci moom yow ci kàttanu yàlla fii ak ay simili mu dugg ci géej gi wane résultat bu leer nañu ñun bokk loolu ñuy ñaan. mais yéen seen relation ak Balla Gaye lan la maris bi la wala lan la parce que coow li instant bi bari na ñii ne li mu daan tafaatin gis nañ ba mais mu ñëw ba si yéen tuus ak yéen dem loolu coow li bari na. waaw Omar Sakho Balla Gaye moom dafa baax kooku frère bu baax la tey man ma nekkee ci jafe-jafe fan yee ci kalaaf bi heure bu nekk daf may woo téléphone caat defeel nii doxaleel vraiment nekk frère bu baax ñun tam dañ ko seetaan bu amee laa moom nañ ci taxaw jàppale ko Balla Gaye ñu seetaan daf ñu jàppale Balla daf ñu jàppale du ñu seetaan bu amee laa moom ñu ne dañ koy taxaw de waaw noonu la demee nag. Ah. barke alxuraan. mais ñoom ah, may ma gi leen daa ñëw pour tas mafia bi. daa non mënu koo tas dama faa dugg dugaat fa dugaat fa dugaat fa dugaat fa dugaat xam naa sarax bi. sarax bi méttiwul. macha Ndoye ngi noonu Moussa ngi noonu war a dugg ci géew bi mi war a dugg ci géew bi moom mu ñëw. ndeysaan bi moom Moussa Ndoye ndeysaan déggal oh ndeysaan lii lii moo métti dégg ndeysaan nee ko dégg nga ma Thiatou Yarakh nee ko dégga ma ndeysaan oh lii moo lii lii nag lii moo daw yaram lii. xaar ko day ñëw day ñëw bul yaa xam ba song xaar ko day ñëw. bul yaa xam te lamb ji ci benn côté jël sa temps match nul sax man bañuma ko mais bul daw di ko song mukk xaar ko nee na ko bëgguñu match nul xaar ko lay la xeela la Habib Kaay Moussa noonu lii xeeru lan la ko lii xeeru lan la oh ma image bi xoolal ma image bi lay la xëy tey lamba bari tegtal lamba bari tegtal dëgg lay laxi la laa Moussa Ndoye mbay guy gi combat bu neex ay Assane Ndiaye loo ñuy indil nii toj na ko toj na ko toj na xeer ba arbitre baa ngi woo ñi koy woo waaye Moussa Ndoye mbokk yi ba mi ngi ci digg géew bi jàmbaar li lay laxi ndeysaan am na lu ñu koy jox am na lu ñuy jox li nga xam te ne moom mooy Moussa Ndoye ndeysaan waa yaraax a ngi noonu ndeysaan gaa yëpp dañ ne ñu yéeg ndeysaan ci lamb ndeysaan moo metti ànd ak say morom ba entraîné ñoom ba pare ndeysaan ba tey pareeguñu la ilaha illallah yarax waay wës jàmbaar lan la yor nii lii lan la Habib lii lan la ndeysaan am na luñ koy nee ko demal ci kaw nee na ko demal ci kaw làmb démb gi noonu déggal ay way làmb ñi ñoo sonn am nañ ma dugub ndeysaan ay waay waay waay Mansour jox na ma dugub mais garaawul Mansour jox na ma dugub téeméeri xaaral ma teg ko nii ndeysaan ndeysaan sarax nañ ma dugub bàyyi ma teg ko nii te jëw bàyyi ma teg ko nii ndeysaan bi gaay ndeysaan gaay ba tey pare guñu mane ko gaay ba tey pare guñu waa di làmb démb ndeysaan daam ku may seet daam ku may xool daam ku may xool gisaguma ko ndeysaan ñii ba tey pare guñu ma ne ko ñii ba tey pare guñu ba tey pare guñu waaye xoolal ma lii làmb bari tegtal làmb bari tegtal takk na ci kanamam jox nañ ko picc ba picc ba la xoba ginaar la xoma lan la jox nañ ko ko nee na ko bu ko joxee noonu nee na ko bu ko joxee noonu mi ngi koy wax lan la koy joxee ci lamba bari tegtal ci wës ñi nag seen 100 pour cent bi dëgg naa ah. ma ne ko ñii seen 100 pour cent bi dëgg naa ah Habib Kaay Habib Kaay Habib ndeysaan Habib Kaay Habib Kaay Habib Habib instant bi Habib nañ dem ca digg géew ba.